nga wax ah donc ça veut dire que dañuy dafay dañu ça veut dire li ñu ci mën a rafetlu d' abord euh, te di ko félicité wu mooy la volonté. Mm-hmm. Euh, parce que mën nañu nangu Sénégalais yëpp nangu nañu quand même que yéene baa ngi fi euh, volonté baa ngi fi pour mën a soulager un peu les populations loolu moom vraiment dañ ko ci dañ ko ci rafetlu ñaan leen ñaan ñaanal leen ci aussi. Mm-hmm. di leen ci accompagner pour ci mun ñu mun mun ci réussir pour le bien-être des Sénégalais. Mm-hmm. mais nañ jàpp quand même que man dama jàpp à mon avis que ça a été ça a été un peu précipité c'est un mandat de cinq ans il faut pas que ñu agir sous le sous le coup de l'émotion ou sous le coup de la pression populaire ils ont cinq ans pour le faire donc warul yàkkamti. mais il a fallu mettre quelque chose sur la table sur la main des, du peuple qui a, voté pour pour mais justement c'est que il fallait avoir un discours de vérité. gis nga mhm. Ousmane Sonko il l'avait commencé il y a quelques mois derrière ou y a quelques semaines. il avait commencé même à dire que li nga xam ne maîtriser woo ko di da koy jéggaani vraiment munoo am munoo am même mise sur la sur la structuration des prix. Hmm. loolu munul munul c'est-à-dire que waxoon na ko il fallait la waroon na continuer foofu la waroon continuer dire au Sénégal le Sénégalais n'est pas compliqué. le hmm. Sénégalais n'est pas n'est pas aussi difficile que ça il suffit de lui dire la vérité. la vérité c'est quoi nañu jàpp ni tey. bëgg nañ ko ay la yoween am nañu yéene bi mais pour ñun la priorité aujourd'hui nañu soxale mbay mi nañu soxale bay dundee nañu soxale li ñuy dundee ñu koy bàyyil suñu bopp. mais loolu c'est en long dans le long terme wala moyen terme. mais dans l'immédiat il fallait mettre quelque chose sur la table. mais la, dans l'immédiat ils ont mis quelque chose sur la place sur la table. mais mm quel prix aussi fi may wax yow nii nii pas plus tard que hier soir pour nga gis suukar prix léegi dans quel but nëbb ko pour créer benn manque parce que ils se disent que ñoom stock bi ñu am jeexagul mënuñu ko jaayee prix boobu je l'ai hmm. acheté à 700 francs

donc loolu naka laa koy dénoncer. Mm-hmm. y a des y a des y yoo xam ne dañ ko war a mën a jël en compte et c'est un peu difficile parce que aussi xoolal da xool un peu ñu boutique yëpp ñu gérer le commerce aujourd'hui le petit commerce est géré par qui aujourd'hui mais l'économie sénégalaise n'est pas entre les mains des Sénégalais. justement les boutiques bëgguma discrimination mais néew ci Sénégalais voilà bëgg waxee bëgguma fu yegg mm-hmm. pour que pour que ñu mën a

maanaam bu ma la comprendre souveraineté bi du rek ci mbay mais xoolatal un depuis le départ des Maures depuis le départ de nos parents mauritaniens qui gèrent les petits commerces qui gèrent mm. les boutiques qui gèrent les grossistes qui gèrent les petits les les les pour mën mm, faire mm, le transport mais loolu dañ ko ça c'est le patriotisme c'est-à-dire que du du du renfermer sur toi du repli sur toi-même mais c'est une question de patriotisme de souveraineté rawatina ils dans la résistance yaa ngi koy wax léegi ce c'est à mais aussi souvent il nous il des problèmes. mais justement parce que mënoo ko suñ ko nëbbee gisoo ko comment tu vas faire même le volontaire qui vient pour le volontaire qui vient pour contrôler le prix su ñëwee nekkoon nañ ñaata nga koy jaayee mu ne la 600 laa koy jaay. Mhm. mënoo gis produit bi am su génnee produit yóbbu ko feneen noo koy gisee. Mhm. soo ñëwee mu ne amu suukar par exemple noo ko mën a. donc suivi prix parce que baisse yi annonce la ma nangu ko c'est pas aussi facile que ça c'est pas c'est pas facile mm-hmm. il faut que jël le temps de le faire de bâtir ça de discuter de trouver des consen forts dem dans le sens du souverainisme comme nañ ko le mais avant avant loolu l'état wane na benn fermeté parce que gis nañu ñoo xam ne ay doomu réew mi lañ aussi ñu bañoon a plier wu ci warante boobu muy les meuniers mais il a fallu que l'état tape sur la table pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments mais <laughs> on ne sait jamais mën nañu dem à un moment donné ñu ñu ñu faire face à une résistance qui sera vraiment fatale aux Sénégalais. on sait on sait jamais.